jërëjëf mbokk internet yu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuy baax di leen di sant yàlla ci li ngeen ñu toppee ci lépp li actualité rek tey nag ñu ngi fii ci Almadi seeti Serigne Ablaye Faye milliardaire Serigne Ablaye Faye milliardaire war a partager ak moom lu bari li ñu ci gën a choqué nag mooy gis nañ ci aspect social bi nga xam ne ñun ku ñu xam xam na ci social gis nañ mu ci liggéey liggéey bu am solo ba tax na tey ñu war a am ak moom jotaay ngir waxtaan ak moom ci lu bari. Euh, dama koy bàyyi mu nuyoo ñu door dugg ci waxtaan wi war naan waxtaan tam ci lu bari nan la ko social bi dikkee ba tax mu koy def ak fan la jëlee ay moyens ak lan moo ko poussé ba tax mu am amour social dama koy bàyyi mu nuyoo si ñoom la nuyu naa la. asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen baalu ak si weeru koor gi di nuyu Serigne Mountakha Mbacké mi nga xam ne moo fi teeru mu di yàlla na ko yàlla yàggal ko te wéral ko di nuyu Serigne Mbaye Sy mi nga xam ne moo suñu Serigne yàlla na ko yàlla yàggal ko te wéral ko di nuyu Serigne Laye Niassène Khadir yi ba suñu mbokki chrétien di nuyu di la ziar di déplacé waa di rafetlu sa déplacement bi nga xam ni ñëw nga fii si almadi nga seet sama fii d'accord jërëjëf noonu la nuyoo kon ñu nit ñi ngi ñaanal sang yooyu mu suñu borom guddal seen fan te bàyyi leen fi ak bépp kilifay diine rek di nuyu itam suñu mbokk chrétiens yi ndax ku ne xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk ci koor gi tam moom it ñuy woor ñun ñuy woor waaw muy loo xam ne daal lu daje la ah ñaan daal yàlla def jàmm sëñ Ablaye kenn ku la xam gis la ci aspect social parce que social daf bokk suñu tous sa digganteeg social bi mais laataama ci sori dama koy bàyyi mu ñëw xool li nga xam ne moom social bi door a dikkaat jukaat ci waxtaan bi kon ñu bokk si taan li nga xam ne moom lay yëngu ci wàllu bu bu xaalis moo nekk si biir bu bu ko xotti damay bañ ngeen xottaale lii ba ba ba passé. dana xottiwaale woon xaalis bi. waaw bisimilah. Ah, yàlla fay. yal bismillah bismillah waɗeɗo fi allah bismillah bismillah alañaa ah, na wàññi leen ñëw leen ñëw leen ñëw ñëw ñi ñëw ah, amoon ngeen di yéen ah. maa ngi doog a ñëw man. yow amoo moo ngi si loxo bi mu téye moo ngi ne la mu téye si loxo. yow amoon nga. moo ngi nee sa loxo moo ngi nii loxo mère ñoo koy gis. moo ngi nii sa loxo. eh moo ngi nee si loxoom. eh yéen a dugal. mais mais am a wax kii dañoo man ngi nii di leen ziar tey moom damaa ñëw ma ne teral sama papa parce que ku teral yaay teral papa tey dama indi lu toll 30 millions waaw 30 millions yoo xam ne dama ko jox sama papa mu naa ko bëgg jox pour mu jël 20 millions yi dugal ko kontam waaw jël 20 millions yi dugal ko kontam ah léegi mu jëlee 20 millions jël 10 millions yi. ñu def ko ñi nga xam ne day bëgg dépa ñu ñëw dépasse ordonnance ay ordonnance ay ay ay ordonnance ay ay euh, facture courant ak ay ndox yoo xam ne wax dëgg yàlla bu ñëwee bu ñëwee pour ñu mun ko mu mën nga see teral mën nga see jàppale pour ni ñi nga xam ne ay ba ñi nga xam ne ay néew doole yi nga xam ne day yëf fi di soxla ay ordonnance ay dépasse ay courant ak yooyu ak yooyu yëpp mën ko si jàppale si si social na tax bu bëri loolu mu fi fekk mu fi nekk ma ko tey ma dem li nga xam ne encore mooy trente millions jox ko sama papa pour mu ñaaral ma pour mu jël vingt millions dugal kontaan dix millions yi mu jox ko ñi nga xam ne dañ soxla ordonnance dépasse courant comme ni woon kontaan naa bu baax maa ngi lay ñaanal yàlla xéwal yokk. amiin amiin. dinaa ci mën a préparé aji makk. dem ci umra. amiin. dinaa ci mën a waa koñ bi dimbali sunu mbokk yi dimbali mboolem jullit yi. amiin. wax dëgg yàlla yu ma jullee say rakk yaa di dimbali. kër gi manqué wul dara. kër gi manqué wul dara. mënut ñu dara. wallaay dëgg yàlla ñu ngi lay ñaanal. ñii na dem bi ci dimbal bi ci kaw di dimbali. waa koñ bi ku si ñëw incha allah. ku si ñëw daañu la am nañu looy loolu dimbali ay bandaas yëpp. kontaan nañu bu baax jërëjëf. Thank you. sëñ Ablaye ñoo bokk si tànnandoo li nga xam ne moom ngay def ci wàllu social sa diggante social lan moo la poussé ba tax nga am amour boobu. waa xam nga faadal xam nga àdduna dafa dafa metti hmm. te dañoo toll si réew boo xam ne jamono dafa metti hmm. te borom doole yi yëpp ñu ngi làqatu hmm. te xam ne ñëpp seen doole yamul te man dama nekkoon ku ñàkk. sama mhm. yaay ñàkk sama papa ñàkk kenn amul kenn amul si woon mhm. kon bu yàlla defee dem ba tey ma dem ba am teraanga boobu am alal boobu damay jël sama alal boobu di ko dimbali doomu aadama yi nga xam ne dañoo ñàkk li ma koy def comme ni ma ko waxee rek chaque jour maa ngi wax ñi nga xam ne moom ñoom ñaay defal ma nii naa ah, wa dëgg yàlla képp koo xam ne am nga sa teraanga war nga yëkkati alal bu bari di ko séddale néew doole comme ni nga ko defee yow ci chaque jour yow yaa ngi jël sa aide yaa ngi sa sa doole yaa ngi jël loo nga mun li nga mënul lépp yaa ngi koy jël di ko def si doom si si doomu aadama yi te lépp leer nañ Dakar Buzz moom wax dëgg yàlla si si si social lañ ko xamee. def lu baax lañ ko xamee wax lu baax kon boo ngay ñëwee tey nga gis may def lu baax nga ñëw di jël li nga xam ne moom laay def lu baax dama leen santal di ñaanal yow mi di la ñaanal gudd fa ak wér di ñaanal borom tele bi nga xam ne mooy dakaar Buzz yàlla na ko yàlla yàggal ko te wéral ko parce que loolu laay ñaan parce que damay def damay bëgg lu loo xam ne lu baax la ñu koy wane parce que fekkee lu bon la ñuy wane nag wax ma ne lu baax lu baax dañ koy war a wane pour ñi nga xam ne dañ koy yor moom milliardaires yi nga xam ne doo nekk si réew mi te wax dëgg yàlla te du ñu génne seen alal di def si si def si ñoom loolu moo tax ñu koy wane mais nekkul wane boo xam ne pour ngistal la dañ koo def rek pour ñi nga xam ne dañ koo yor te nangu nangu nu koo def ni mën see roy def ko. d'accord sëñ Ablaye loolu la wax tey mais lu waral sëñ Ablaye milliardaire milliardaire bi euh, yow yaa lu la tuddee la wala lu loo tuddee sa bopp. non xam nga comme lu mu ko xam nga bu la yàlla dimbalee. nga nekk koo xam ne maara bu baa xam ne maasola da ngay ñaan ay doomu aadama ñi nekk minti milliardaire hmm. léegi bu la ñaanal noonu ba pare ab milliards yi ji ñëw alal bi ñëw nga wala ngay financé di def ay ay lu mel ni juma école opéral tolloo cinq milliards mhm. di ko tabax di jël ay dix millions di ko yóbbu si hôpitaux yi di jël ay vingt millions di ko yóbbu si doomu adama yi di jël ay trente millions quarante millions di ko def si doomu aadama yi mhm. di di ñaana ay doomu aadama yi ni nekk ay minti milliards nga lay ñaana nii gisee nii gisee buñ la fayee ñii ni jël deux milliards fay la nii jël trois milliards fay la wala quatre milliards cinq milliards sept milliards bu yàggee alal boobu day bëri ni loolu moo tax xam naa ñi ñi dem ba tudd ma seen Ablaye Faye maar bu milliardaire mais comme loolu kay ñoom foofu la jógee mais parce que xam nga tey fekkee ay junni junni doomu aadama ngay ñaanal ñi nekk ay minti milliardaire loogi ku nekk bu la fay au milliard wala kii fay la 500 millions wala ñu kii fay la 300 millions wala 200 millions bu yàgg doo yor ay milliards. daal ah? kay loolu foofu nag loolu na te xam nga caaxaan. baaxul xam nga fekkee doomu aadama boo xam ne ni mooy maar bu ko muntu doon li la li la leer na yaa ngi koy def mu leer nañ kooku gëm naa ni wax dëgg yàlla pour ay milliards yomb la dina loo man wax ma nag nii naxe parce que il faut nit ñi waxante dëgg nit ñi dañuy jaawale kii naxe ak ki nga xam ne yàlla dogalul ñaanam ant il faut mu leer te fii laa ko bëgg waxee mu leer. Mm-hmm. parce que man mii man mii ab Ablaye Faye dama ñaan ay doomu aadama ay junni junni doomu aadama. mais bu fekkee cent pour cent yi quatre vingt quinze pour cent yi ñu nangu cinq pour cent yi mun naa bañ nangu. il mu leer fii fii laa koy waxee mu leer. mooy mun nga ñaanal quatre vingt quinze pour cent yëpp mu normal cinq pour cent yi mu yéex parce que dafa am ay nit ñoo xam ne noo la ni mel seen mbir day yéex mais ala kulli aari mun na dem ba sotti mais comme ñun ñun yàlla rek la ñuy gëm. yeneen bi rek la ñuy gëm. sallallahu alayhi wa sallam du ñu forcer yàlla. di ko wax nga def si diw mu nekk mu mu mu ñaanam sotti ñun dañuy ñaan moo tax képp ku ñu sëkkal ni ñaan mun dañ lay wax lii fi nekk mooy ñin yàlla la ñaan yàlla la la la la ñaan moom la ñu yaakaar boobu la am mais du ñu forcer kenn nu ñu wax far force ni diw moom mbiram day sotti. d'accord loolu leer na parce que kuy ñaan suñu borom moom. xamoo ndax li ngay ñaan suñu borom dina la ko moyam jeex ndax yàlla mooy ki dogal sëñ ci li muy liggéey ci xeetu ñaan ci lan lay gën a yëngu ci wàllu ci lan lay gën a yëngu. ci ban façon ñaan si li may gën a yëngu mooy comme la waxee damay ñaanal ay doomu aadama ñu am kayit. Hmm. damay ñaanal ñu nga xam ne amoo dara ma def la nga nekk multimilliardaire ma def la nga am alal nga am teraanga. damay ñaanal koo xam ne ña ñàkk yorul dara damay ñaanal koo xam ni damay ñaanal koo xam ne yorul dara musu yor dara ma defal ko mu am parce que àdduna moo demee noonu. àdduna hmm. boo si nekkee yàlla dimbali la ngay ñaan muy sotti wax dëgg yàlla xamal ni loolu yombul parce que doomu aadama yu bari ñu ngi fii ah ay maarab yu bari ñu ngi fii ñu ngi ñaar mais xëy na mun naa bañ a sotti mais ba léegi duma wax ñoom munu nun parce que mais nit ki fekk kin yaa dafa ñëw si yow wax ko li nga xam ne moo fi nekk ñin doomu aadama bi nga xam ne bu fi ñëwee bu ñëwee ñin dañ lay wax li nga xam ne moo fi nekk mooy man duma forcer yàlla du ko poñe mi ko far force mu nekk damay ñaan mais maa ngi si sant yàlla parce que fekkee comme li ma ko waxee ay junni junni doomu aadama lay ñaanal wax dëgg yàlla bariwul du du ñàkk nag il faut nit kiy wax dëgg mm. du ñàkk nag parce que maara yi ñuy tax mu seen problème du ñu wax dëgg mm. dañu dañuy ñëw dañuy wax mun na lépp mun na lépp wala ñoom am na complexe toog ma ni ah ñaanal naa ay nit sottiwul mais da ngay li da ngay wax li fi nekk. parce que dafa am doomu aadama yoo xam ne seen mbir seen buntu wërsëg dafa tolloo juróom-ñeent bunt. ñooñu mun naa yomb mun nga leen ñaanal mu yomb am na ñoo xam ne seen mbir dafa dëgër këcc ba essage mais da nga si def li nga mun pour mu mais mu taxul ñuy wax diw munul wala diw xamul wala diw day naxaate. i fu mu leer parce que euh, comme ni ma ko waxee. parce que fekkoon dama doon naxaate wala dama doon lii fi ma àgg du ma fa àgg ñaata kër doomu aadama ñaata kër laa tabax. Hmm. ñaata social laay def ñaata oto laay yor ñaata nit ñi di ay millions millions. mun naa fii bu ma génnee si audio yi fii audio yi nga xam ne dama ñaan ay nit ñu ngi gis ballaahi azim mu neex ma teg ko fi. ñoo xam ne dañ may sant ñi ñi nga ma ñaanal gis naa ko. li nga def naa defal nga ma ba am tey jamono ni nekk naa minti milliardaire am naa alal am na teraanga mais comme dama koy du ñàkk ay clients yoo xam ne da ngay ñaan mu dëkkër mais ñooñ dañuy def ndànk parce que ñaar ay doomu adama mu sotti yombul ku la ko yombuloo dalay nax dañuy def ndànk ñi si def bàkkar ko muy sotti mbiri nag mi lenn la nit ki boo ko wóoloo mun nga ñaan lu moom boo ko wóolu bu ñaan lu moom mhm. mais mais balaa nit di jël sama numéro si fii damay lay wax li nga xam ne moo leer mbir yi nekkul loo xam ne lu yomb la miir yi ndikk loo xam ne dañ lay ñëw ni ni wax la encadral euh, parce que parce que mënu waxee xam nga dafa am ñoo xam ne boo la ko waxul fii mun nañ yàkkamti te mbir yi ku yàkkamti mo du la bëgguma la ñaanal damay ba képp ku may ñaanal nga def ndànk parce que doomu aadama yoo xam ne dafa am ñoo xam ne seen mbir si ñett fan lay dox seen mbir sotti am na ñoo xam ne si une semaine am na ñoo xam ne si dee semaines am na ñoo xam ne si ñetti weer am na ñoo xam ne si ñett at am na ñoo xam ne si ñeenti weer bu demee ba ñeenti weer ba ñeenti at juróom at moom sottiwul xamal ne kii moom wax digg yàlla li ko li nekk li nekk si moom pour nga ñaala ko mu sotti du du yomb parce que dafa am ay rab yoo xam ne bu nekk si yow wala ay rawaan nekk si yow wala liggéey yoo xam ne bu nekk si yow pour nit ñaanal la ba ba nga am alal day jay jafe. Mhm. d'accord sëñ Ablaye ndax euh, yow bu nit ñëwee ci yow di la ñaanloo. ndax lan nga koy njëkk ndax danga koy seetal pour xam rawaanam ak fan ngay tàmbaleek moom. dama koy seetal mu ko seetlee fekkee da nga ko liggéey ma carrément dañ laa liggéey mais seet bi lii lii la wane mën na koo dindi mais si kaw boo ko fekkee nag da ko bëgg ñaanal mu nga xam ne day nekk minti milliardaire. da nga koy leeral wax ah mu nga bu si kaw boo dindi li nekk sa yaram mën mën ngaa nekk fekkee ki nga xam ne dafa ñëw si yow mënul nekk nga xam ne da nga ko carrément bu ma sañoon duuma la ñaan demal wuti keneen. waaw ah, kon léeg nit ñëw ci yow wax la boppam nga ne ko man mënuma mm, laa ñaanal la ñaanal demal keneen wala ma boole ma la ma seet koo xam ne ah, am naa yaakaar bu demee si moom yaakaar moom boole ak moom. ñi nga xam ne ñu ngi ci àll bi. Mm-hmm. yàgg fa lool bëgg ay kayit te mënuñu ko am nga xam ne naxaate yi bari na arnaque yi bari na sëriñ ci lekk seen xaalis ba ñu découragé ba gëmatuñ kenn ah, ndax yàlla may na la ci côté boobu tam parce que jaaxle nañ ñoom. waaw comme lu ma la ko parce que am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne ñu ngi nekk États-Unis man ay ce que xam nga nii am na koo xam ne nii wax dëgg yàlla si oto la doon fanaan am na koo xam ne si suuf garab yi la doon fanaan si suuf pooyee mm-hmm. parce que ñàkk kayit mm-hmm. ñàkk alal ñàkk wërsëg mun na ko da koo daloon ba instant ni tey mm-hmm. yàlla def pourtant si internet la ma gisee am na am na joom aadama yi waa xam ne noo man du ma du jël sëriñ internet parce que ñëpp naxaate déedéet am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla seen aajo si internet la la la fajoo. Mhm. parce que tey fekk da wax doomu aadama yëpp yam da ngay sa bopp. Mhm. man am na koo xam ne si si internet laa la ma gis. Mhm. ma ñaana ko mu am kayit ma ñaana ko mu am alal am na koo xam ne xam la la jabaram def jabaram def ko dafa nangu alalam. ñoo bokkoon alal ñoo bokkoon kër ñoo bokkoon oto ak xale yi nangu seet ko ëpp ko doole ba boole koy avocat ni nangu alalam. nangu këram du gis ay doomam sax du ko gis. fexe ba esaan du gis ay doomam fexe ba esaan dem ba di biir otom dem ba ñàkk amatul dara bis bu yàlla defee ni boole ma ak moom ma ñaana ko mu am alalam jotaat alal bu ëpp fuuf boobu mu yoroon ku jigéen ki bugg delluwaat mu ni ma mais man dama ko bëgg affaire yooyu moo ko ah baa doola daal daal baa doola bu bu ñëwee si yow boo ko toroxu si toroxal la la jëmee. fekkee moom moo la toroxal dëgg la wax dëgg yàlla nangul nga gis sa ay doom ñetti doom yu góor nangul nga gis leen nangul mu boole la ak ak ak avocat yu am doole boole la si police dëkk bi ba ba ñu xañ la sa droit xañ la lépp dàq la génne la si biti yàlla def ma ni ni boole ma yow ba nga ma defal la ba nga am ala nga am teraanga après moom mu dem gis sa sa parce que da ko boole ko woon de. Mhm. da ko boole ko du gis noonu mais ku bi ku bi day liir yeneen statut yeneen statut yeneen si yeneen numéro euh, xaritam yoo xam ne dañ koy statut teraanga ak yooyu mu xam ne am na alal ma bëgg ne ñëwaat si moom. kon kooku lan laa koy mën a ah ma ko dama ko wax bu ma sañoon wax dëgg yàlla da nga koy baax. xëy na mbëggeel am na si yow bëgg nga ko mais da parce que ku lay toroxal moom looy def ku la toroxal yow yow est-ce koo xam ne moo la teg nattu àdduna teg la jëf-jëfi àdduna teg la ay problème àdduna ah xañ la ngay fanaan si ay mbedd yenn say day foraatu bu amee wecc dem otel bu amul yenn say yaramam day métti ndax ni mu tëddee si biir oto bi dem di jooy guddi bëccëg bu gis ay doomam mënu fexe ba gis ay doomam bugg bugg ndaw si boole ko ko génn ko si kër gi te ñoo bokkoon kër gi compte yépp mu boole ko ko nangu ko yàlla dem ba ubbi la sa xéewal nga mu bëgg ñëwaat lan laa koy digal ndax ah, dama ko wax ah, bu ma sañoo dem moom da nga koy bàyyi wuti keneen parce que ah parce que da tooraxal ba pare. kooku fan nga mujjee ak moom après. Ah, am na alal. macha allah am na alal am na teraanga mu ngi def ay social mu ngi dimbali ay doomu aadama mu ngi jël ay bateau fu nekk lay dem alal bu bëri tey tey macha la am. d' accord ñi nga xam ne tam ñi ngi fii ci réew mi li ma naan cat càpp leen mun noo lijjanti dara mu sotti. Mhm. seen yaram moo yàqu wala def-def la wala lan loolu tam sëñ Ablaye dina ci yëngu. waaw dama si yëngu comme ni mu a ko waxee xam nga faadal àdduna mm-hmm. dafa am lu mu doxee. Mm-hmm. te nit ñi comme dañuy jaawale comme mën ak ki mënul ak ki kiy mm-hmm. dóore wala kiy naxe. xam-xam nekku si yére. xam-xam nekku si ay galaaj xam-xam man. lan laay bañ li ma gën a bañ sama àdduna mooy ki nga xam da nga sëkk moom ba pare moom moo ngay jékki-jékki di woo téléphone di ko tiital fan nga toll gaaw a gën a xaalis bi gaaw a yow la laay xaar man gëm loolu loolu xam-xam xam-xam mooy nit bu la woowee bu ko forcer bu ko woo bu ko tiital bàyyi ko bu xelam dalee si yow dina la ñaalu mais am na ñoo xam ne xaalis moo leen intéressé si nit ki. mooy ni moom na fexe ba mu jot si xaalis rek bu jotee si xaalis ba pare rek yoonam nekk si lu te loolu baaxul am ay nit moo gën am xaalis mhm. parce que tey fekk ñaana nga nit ki mu am alal mu am teraanga mu gis da lay boole ay ñeneen ñeneen mhm. kooku boole la ay nit nit ki kooku boole la boole loolu moo tax nga dem ba am alal mais fekkee da ngaa nax kii nax kii da ngay dem ba instant dooto yor keneen dooto yor ay yor parce que ñëpp dañ lay daw dañu xam yow mii da ngay naxee kon nit ku mënta doon bu ñëwee si yow wax ko li nga xam ne mu am cat bi nga wax noonu dañ koy ñaan parce que cat day rey wala mu sëmbal wala mu yàqal la sa àdduna cat bu nekk si yow da nga dem ba instant problème yëpp ngay am cat bu nekk si yow da nga dem ba instant jëf-jëf yëpp ngay da ngay yenn feebar am na ñoo xam ne guddi gi dañu feebar ba bëccëg am na ñoo xam ne duñu nelaw am na ñoo xam ne seen xaaj bi day met jàpp bët bi yaram di tay tàng seen nëpp di riir am na ñoo xam ne seen lekk day wàññeeku am na ñoo xam ne sa seen biir day fees del ba duñu mën a lekk loolu lépp ak ak xalaat yu bari yoo xam ne du jeex loolu cat da koy def seytaane encore da koy def liggéey da koy def mais lii gën a bon si doomu aadama mooy cat te am doom doomu aadama ku munta doon boo munee sangutu cat nga musul si cat man dëggal moom laa la dëggal surtout ñi nga xam ne danoo nekk borom barke am na ñoo xam ne bu ah, da ngay gis ñoo xam ne dañuy am alal mais dañuy gaaw a gàtt fan kon nit ki boo ñaan lu nga am alal ñaan lu nga gudd fan ñaan lu nga wér parce que alal alal bu bari te jëriñoo ko baaxul. Hmm. nit ki day ñaan ay ñaan alal boo ko ñaanee nga mu jëriñ la. mu jëriñ la mu jëriñ la yow it mais nga yow nga continuer di si def lu baax comme yu la parce que mun naa wax faadal mun naa wax tey jamono nii yow yàlla dalaa yelloo yow nga nekk minti milliardaire. Hmm. parce que sa xol dafa rafet. am nga yërmande si doomu aadama yi. gisoo mu yow mënoo gis ku feebar mënoo mm-hmm. gis ku nekk si ay xat-xat mm-hmm. parce que ba si kii nga xam ne mooy sa patron mm-hmm. sa patron de xaw ma ko wax dëgg yàlla mais wax dëgg li ma gis muy jàppale doomu aadama yi état sax da ko war a fal ministre Macky Sall da ko war a ministre parce que man gouvernement bi bari naa si ay doomu aadama yoo xam ne dama lay ñaan ay ministre bari na ay mais wax dëgg yàlla bu ma sañoon ñooñ baax na sax ñu parce que ay nit ñu baax na mais am na ñu ko gën am na ñu kii moom da ko yelloo mooy kii nga xam parce que damay gis ay cas yu garaaw yoo xam ne si internet bi dangay dem ba instant da ngay sëgg sa di jooy te doo xam nit ki parce que xat-xat yoo métti métti yoo dafa baax état bi jël ay milliards jël jël lu post bu baax fal ko ko parce que ñooñu seen loxo jutu seen gannaaw te àdduna boo si nekkee te yoroo sa loxo jutu si gannaaw boo xiifee doo lekk boo boo maree doo am problème da nga am problème nag parce que dañ lay coupé courant bi boo ko fayu ñu coupé la dund amoo ko amoo sa doom yi nga nekk ay xale yu ndaw wala nga sa jikkal dañoo liggéey amul doole nga nekk sa xat-xat yow boo gisee ku mel ne faadal ñëw di la jox saaku ceeb ak diwlin wax dëgg yàlla xamoo tiyaaba yëpp nga si mën a am. d'accord sëñ Ablaye ndax nit dina nekk bitim réew. wax la mhm. bopp wax la soxlaam nga xool ko fajal ko fi nga toog sans attaque nga déplacé. waaw waaw loolu am na. parce que mhm. dafa am ay doomu aadama yoo xam ne da ngay seet man bu may seet damay seet soo xam ne mën naa seet si téere mun naa seet si si si si plafond mun naa sax seet sa mbir oto di duma xool dara mun naa te dama lay wax ba wax la oto couleur oto bi nga yor. ah ma wax la ba wax la doom yi nga xam ne yi nga am ñuy tudd. wax seen tur ngay jaar seen tur waaw. Mhm. man dem wax la loo xam ne jaf yi nga ma xool parce que bu fekkee yow da ngaa mosoon jël ay galaaj sax suulu ko sa bopp mun naa wax galaaj yi ni ñuy mel mun naa la fi nga ko suul. sëñ lay xam-xam bi loo jàng la wala loo dond la wala lu la dab la. parce que mun naa wax ñaar parti bi. mun naa wax sama yaay mun naa wax sama papa sama maam maamaat dafa amoon xam-xam mais bu muy génn àdduna mooy Umar Jam Siré Fay ñépp xam nañ ko jamono Senghor oto dafa jafe woon oto da ñëw ba si moom kooku jamono kooku dafa amoon xam-xam day dem tukki bu amee lu dal xale dina ah yoon bi am na li dal xale si kër ga te bu demee noonu lay demee mus naa tukki yor saagam di mu waaxu jamono boobu oto dafa jafe woon mu ni borom oto bi dama bëgg nga nga yóbbaale ma borom oto bi mu am na kenn ma ne ñu duñ yóbbaale dof parce que li mu soloo ak li mu mel mu ne duñ yóbbaale dof ma ne ah loolu nga wax mu jël benn nan ma baal si lii mu benn jël benn day béy mu tifli si sànni ko sa moteur bi ba tey moteur bi ba tey moteur bi takkul ba mu dem ba mu ñëwaat ba mu ñëw fekk leen foofu ñu ko ah yéen may ma wax leen ngeen yóbbaale ma ngeen ne duma yóbbaale dof ndax sama comportement mais mu wax baal nu baal nu ba kooku jëlaat lool sànniwaat ko moteur bi tàkk day mel ni yasi rek day mel ni tul rek boo takkee tul bu ñu la jëm paaka du dugg moteur boobu bu ñu jëlee galaaj bu bon def ko si moteur bi munu fexe ba moteur bi du tàkk te boo jëlee vis boobu def ko si benn oto oto boobu day paan day yàqu. léegi loolu la def ba aysaan ni baaloo ko ba kooku tey mu nekk kiniyaamam ba tey lu teraanga bu nekk la ko doon defal kon sama maam am xam-xam boobu amoon na. sama maam am dem na ba am xam-xam boo xam ni wax dëgg yàlla euh, du du comme lu mu ko waxee parce que ab affaire yoon affaire yoon ay jamono da doo ñëw foofu ci koo xam ne wax dëgg yàlla yenn sax yàlla dalay natt ay ay ay mbokk yoo xam ne duñu jub mm-hmm. di sàcc ay jur jàmbur di jël ay alal jàmbur mais wax dëgg yàlla mais xam nga kenn bëggul kenn bëggul sa mbokk ni ko yóbbu police nu mu dëng dëng dëng dëng dëng doo ko bëgg mu yóbbu ko police mm-hmm. mais sama maam gendarmerie yi ñëw si kër gi mu ne aña ñu mu ne ah gen ñu de kii la seet te xam na ñuy seet man ah ñu ngi taxaw man ah ñu ngi seet mais loolu fu ñu ko def dafa def foo xam ne mooy euh, lëg fu muy mm, bëf boo ko su defee si kàttanu yàlla ñoom fu nu mun a jaar dunu dunu dunu jege foofu ndax ko ay rab jàpp mm-hmm. ba ay bokk mu jaaxal ay bokkam am nga ci xam-xam waaw parce que rab rab rab bu la jàppee day tàng sa yaram rek te di rab day muuj sa deret ba doo da ngay miir sa buti day weex wextal dootoo am deret parce que da koy mucc rab boobu dañ koy faj parce que comme la waxee rab li seytaan li rab li li li euh, cat lépp ñoo xawoon nduru li liggéey li li ñu fajee mais ba léegi bokkuñu parce que bu nekk dafa am garab boo xam ne sangat wala boo xam ne moom nga koy fajee am boo xam ne noo nga koy dindee parce que am na cat yoo xam ne bu day nekk sa yow mais dañ koy dind dañ koy jaar seppi seppi mocc ko ba mu set si yow rab moomu day yàq lu bëri surtout rab boo xam ne encore boo xam ne dalay takkaloo ko ay jikkër yu bari am na ñoo xam ne juróom jëkkër nañ koy am am na ñoo xam ne euh, jëkkër bu nu am rab bi fexe ba yàq seen tàkkale ko ñoom am na ñoo xam ne toog nañ ay at at du ñu sëyee am na ñoo xam ne jëkk seen borom kër du dul am li ñu bëgg loolu rab rab da koy def rab da dem ba instant da lay daan rab dangay ngay jékki-jékki ba nga am problème nga nekk sa biir kër wala nekk sa biir néeg yow kese dangay ngay wet bu bëgg doo da ngay wet dangay ragal wet rab encore li muy def si yow mooy instant da ngay dem ba instant da ngay jékki-jékki rab bi. Mhm. rab bi euh, yàq sa sa diggante yow ak sa liggéey rab bi yàq sa lépp boo xam ne parce que ba da ngay jékki-jékki rek mel ni dafa am lu la ku la woow rab da koy def wala jékki-jékki mel ni dafa am lu la romb. fekk dara romb la waa nga jékki-jékki guddi gi mu lay tiital mu lay fàtt am na ñoo xam ne guddi gi bu ñu tëddee guddi gi rab bi da leen ba du ñu a nooyee mhm. am na ñoo xam ne ba dëgg yàlla euh, rab bi da leen sonal loolu lépp da koy def parce que loolu lépp ay ñaanam am na mais ñaan yooyu ak ñaanal nit ki mu am alal mu am teraanga mu am wërsëg mu ubbee ko ak yooyu yëpp bokkul parce que comme lu ma ko waxee bu façon bu fekkee da ngaa wama jël garab boo xam ne buy faj bopp nga bugg ko faja tànk du ba nit ki bu ñëw si yow seetal ko xool ko ba xam kii mun nga koo faj nga doo ko mën a faj fekkee mënoo ko faj nga wax ko wax dëgg yàlla mun naa la faj de mais dina yeex dina jël temps. d' accord loolu leer na ku ne xam ne ñu ngi jëm ci période élection actualité mun ci see bañ a laal. Mm-hmm. Euh, ëllëgu Sénégal lan la ndax gis na ni euh, euh, président Diomaye génn président Ousmane Sonko mi ngi accompagné moom Amadou Ba aussi mi ngi sur le terrain ak ñeneen ak ñeneen ëllëg réew mi nga ci gis comme am na loolu yàlla dénk ci wàllu xam-xam. rek xam nga réew. comme lu ma réew dafa am loo xam ne li mu li li jiit war a mel ba pare mhm. parce que réew mun nga di di def ci sa ay sa sarax mhm. du ñàkk mhm. ndax réew dafa diis réew munoo toog benn place nga ni doo ñaanlu doo def ay affaire xanaa tubaab yi nga xam ne sax gëm nu yàlla de gëm nañ yàlla mais gëm nañu yenante ñu ngi xërëm ñu ngi def ay affaire seen affaire yooyu xërëm mm-hmm. formation yooyu affaire yooyu mais ñu ngi mm-hmm. ay jullit nan mm-hmm. mais képp koo xam ne bëgg nga nekk président sociale bi mooy mooy moom nga ñekk def képp ku dëkk def social si réew mi bi élection jotee mooy mooy jël réew mi képp ku ciy def social. ku si def social moom ki dimbali doomu aadama yi di jël ay ay ay ay ay ay lekk yu doy da ko joxe jël alal bu bari di ko joxe. di jël ay yàlla rek tax kooku mm. mooy gañe comme li ma ko waxee woon Modou Lo ak kee rek bi passé. boobu loo ci waxoon. dama waxoon képp ku si gën a def social moo si gagné mu mu mu am ndam Modou Lo ni jël ko muy def ay soow di jël ay ceeb di jël moo moo jëloon ndam bi. kon boobu Modou Lo booy ñaa bi la woon. waaw loolu laa ko waxoon boo xoolee sama vidéo yi di nga ko gis parce que boo xoolee mooy ba si ñun maaraay ku si bugg raw ku si bugg raw. di nga jël alal lu bari di ko def si doomu aadama. lu tax xanaa loolu nga sible ba tax ngay def ay sarax yu bari. loolu la ay ay social moo tax moo tax loo gis. mili ay milliards teraanga teraanga loolu la gis parce que doo ñakk doo ko ñàkk. man xam nga gis naa lu ne mais nit ku taxaw ne milliard laa yor maa ngi koy a gis man dama daan dégg milliard. non man loolu yor naa ko. la ilaha <laughs> la yor naa ko. Ah. yow ah demul ñëw nga Thiès. macha allah demul nga ma fekkoon. waaw gis naa ak kër ban moo ban moo bonoo lii. benn bokku ci sama. boo demoon Tivaouane nga xam. boo demoon Louga nga xam boo demoon Almadi fii nga xam. lan moo la may loolu. loolu lu ko may mooy jël ay social di dimbali ñu ñàkk dimbali doomu aadama yi nga amul dara yàlla man mii dem naa ba Dubaay di ñaan ay milliardaires am na ñoo xam ne ñaan naa leen seen place dafa yàqoon dem na bañ ñëw jamono toll nii nekk na ay milliardaires te naar moo gën a nàkkare yu ñaanal ñaa ñaanal ay naar ba instant ba ma fay ma maa fay def sax ay ay ay ay lii ay ay entreprise yu mag ñoo xam ne wax dëgg yàlla defal na ma palaa bi te fii laa ko bëgg a def te lépp ay milliards la. d' lan ngay tàggatoo waale parce que li ñu waroon wax lépp wax nañ ko wax nañ ci social bi wax ci li nga yëngu tey euh, sëñ Ablaye lan lay tàggatoo. li may tàgg jot est ce jot ko yomb na aussi. waaw loolu nag wax dëgg yàlla maa ngi si message nak naa jot lool mais képp ku ma woo jotoo ma bàyyi message parce que ay junni junni doomu aadama ñoo may woo te benn numéro rek laa yor. Mhm. yor ma ñaari numéro mhm. yor ma ñetti numéro yor ma ñeenti numéro benn numéro rek laa yor te man maay wuy sama bopp. amoo secrétaire parce que am ma secrétaire parce li may bañ mooy nga am secrétaire nii laaj si suuf loo xam ne yëgoo ko wala nii xam secret boo xam ne woo nga koy liggéey ak Kenya yi loolu te lii secret bi mu kenn sa gis sax bu may wanee ay ñaa ay galaaj parce que lii secret la ki may sëkkal ñaan kook bu jotee moom laay demal àll ba moom laay dem si guy yi moom laay defal ay ay ay xaluwa moom laay defal affaire ma kooku laa ko mais dem naa ba sama secret sax sama affaire bi dafa dem ba instant sama si sama secrétaire pour xam xam bi sax ñoom sax danoo jaaxle danoo waaru ñoom. parce que ñoom du duñ ko xam secret bi kii may sëkkër rek ñaan muy góor muy jigéen mooy mag muy ndaw kook rek moo koy xam comme yàlla ni ma def comme ni faat faatu yëpp mbuut mbuut yeeg ba si ñi nga xam ne ñoo ak fu nekk wax dëgg yàlla maa ngi leen ñaanal ni nekk minti milliardaire ñoo nekk ñoo xam mais ñi nga xam ne dañu may woo duñ ma jot bàyyi ma message ku ma woo jëluma la day fekk may wérdi wala may julli wala may wérdi wala may def ay affaire wala appel hésiteel rek ba keroog ngay jot damay bañ nit woo ma jotoo ma nga ba yaakaar ne dama laa bañ a jël yow mi sax danga may woo doo ma jot. ko hmm. ngi ne ne dañ may woo doo ma yaay mi xam ne moom sukk jur ak sama papa billaahi wala taala bi ma bëggee jot dañ may woo si si ñi ñi nga xam ne ñoom laa nekkal nu mun maa mën a jot parce que nekkul dama leen bañ a jël am na koo xam ne 2 milliards 500 millions la ma doon jox. mu may woo jutuma xanaa loolu kan fekkoon la ko dama leen bañ a la ko du ma gis xaalis bu toll noonu ma kooku mu may woo di ma woo ba mu dagg ab yoo ñëw nga xam mun ma woo woo woo ba bu du tolloo weer jutuma billaahi wala taala dafa mujj ñëw. mais loolu lan la jàpp bi tout le temps ngay jàpp ba doo mën a jël téléphone. tout le temps damay jàpp lu su ëpp lu ma lu jàpp mooy bu ma demee ba instant ba ma génn xalwa bi wala ba ma génn li may def bu ma toogee si laay mën a wuy téléphone te lay doon ma delluwaat. d' accord waxal numéro bi. après numéro bi 77 la def ci écran bi tam may waxaale ko rek. 77 la 277 mhm. 50 cent 277 50 61 mooy sama numéro ku ma si woow si kattan di nga ma jot boo ma jotul bàyyi ma message bu ma féexee dinaa la wuyu te dinaa la di ma jot. a jërëjëf mbokk yi mooy waxtaan wi la si xoon ak ab Ablaye Faye euh, nit ku baax nit ku social euh, li tax ñu gën koo jàpp nag mooy social bi ndax ñun euh, ku nu xëcc social di nga nu am social lañ boole ñu gis muy saraxe ndax sarax nag gànnaay jullit la ñu ngi ñaan daal yàlla def jàmm ci réew mi yàlla def sutura. te yàlla defal nu kool gu taw féexee lu fi wax lu bokkul ak lu mu waroon wax nan nu ko jéggal matatik doomu aadama la waaye ku xam xam ni ci njub xam na ci dëggu xam na ci pas-pas xam na ci liggéey bu serein ñu ngi ñaan yàlla def jàmm kontaan nañ ci amoon jotaay bi ñi ngi ñaan yàlla defal na jàmm ba jëmi jamono ñu dikkaat fi ku ko bëgg jot tam numéro dina ko def ci baar écran bi lu ko waay soxla peut-être bu ngeen ci partagé ñaar di ngeen ci wax bu wax la lim ci man ak lim ci manul mais daal fi kontaan nañ pour def ak moom jotaay bi ndax nit la koo xam ne nit ku baax la nit koo xam ne si nañu jàmm ak salaam yàlla yàlla def jàmm jërë ngeen jëf